asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziara ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñu ndokkeel leen bu baax a baax ci at mu yees mi nga xam ne moom lañ dugg muy atu 1443 ginnaaw gàddaay yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy ñaanal mbooleem jullit yi atum jàmm atum naataange atum tawféex ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér mbokk yi noonu lañ ko ñaanalee mbooleem kilifa diine yëpp ñu ngi fii ci Touba ci wetu jumaa ji ci buntu résidence Khadim Rasoul ngir waajal bis bi nga xam ne Cheikh mun Mountakha Mbacké Bachir moom moo ko santaane muy bisu xasida ñor ko amal àllarba fukki fan ak benn ci euh, août 2021 war a yemook ñaari fan ci muharram di tam xarit atu 1443 ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis boobu nag ci quelques heures rek laataa ñu koy tàmbali ci dernier réglage yi mboolem site yi nga xam ne moom lañ euh, war a amalee li nga xam ne moo di njàngum xasida gi ndax dañ ko war a amal ci dëkk bi yëpp mu di Touba Mbacké ci biir réew mi ci bitim réew waaye organisation bi fii Touba nekk na loo xam ne nos nañ ko tënk ko organiser ko noo xamante nii lépp teg nañ ko ci dernier réglage yooyu lañ fa yéene ànd ak yéen fii ci jumaay Touba ji muy fi nga xam ne fi la Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Sonia bi fas yéene féete fi nga xam ne moom moo di ci buntu euh, kër Serigne fallu Mbacké gi nga xam ne bâche bu mag a fa te it euh, waa Daara Hizbut Tarqiyyah fas yéene fa jàngee ak yeneen kuréel yi. noonu lañ ko fas yéene àndee ci yeneen jotaay ba ci biir résidence Khadim Rasoul ci installation yi ci dernier réglage yi lépp rek ngir def seen kéemtalaay kàttan ba bis bi nit ñi di ko mën a dund en temps réel ci retransmission en direct yi ak lépp loo xam ne jëm na ci xas xasida gi nit ñi fooy fu ñu mënta nekk di ko mënta di ko mën a dégg kon mbokk yi ñu fas yéene ànd ak yéen fii ci Touba Mbacké ci wàccaayu bés xasida bi ndax li ñu la ko waxee sànq rek ay heure rek moom moo ci des ci li nga xam ne fu la mbooloo mi toll ci organisation bi ci li nga xam ne moom moo jëm ci dernier réglage yi laataa ñuy tàbbi ci bés bu xasida bi ci rabbillahu annani bi wajhihil karim kataba rabbillahu annani arum ridaahu minhu bi wajhihil karim إلي أوصل الكتاب الناسخا لغيره فصار قلبي راسخا نسخ بي ما لم يكن صحيحا وخاد للتفسير والتصحيح ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله اختصني بما يدوم عجبا fii abadin lissaalihiina nujaba fii ci penk jumaa ji fi nga xam ne fi la Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Souhaïbou bu ak waa Ahlu Xasida fas yéene féete ngir dundalee fii ndigal loolu nga xam ne Serigne bi euh, joxe na ko gis ngeen ñu ngi ci dernier réglage yi ci installation yi moo xam sonorisation moo xam électricité moo xam lépp loo xam ne jëm na rek ci li nga xam ne moom mooy di transmission bi en direct ngir euh, taalibe yi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ci bitim réew mën di dund événement bi en direct ñu ngi kenn ci ñi nga xamante ni bokk nañ ci ñi nga xam ne ñooy taxaw liggéey bi ci organisation bi ci communication bi muy Serigne euh, Modou Faye Serigne Modou Faye ñu ngi ñëw fekk la fi nga xam ne moom moo di ci euh, bâche bi te mën nañu xam liggéey bi fan la toll ci dernier réglage yi ndax mën nañ ni ay waxtu rek moom moo des ci ngir ñu mën a euh, jëfe li nga xam ne mooy ndigalu Serigne bi. macha allah jërëjëf Serigne Fallou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax tey rafetlu liggéey bi. waaye di santaat bu baax di santaat sëriñ bi bim ñu boolee ci liggéey bu mel nii euh, di wax alhamdulilah mel ni ñu ngi woon euh, ci wàccaayu liggéey bi nga xamante ne mën nañ àdduna ñoom ñoo koy waajal euh, fi ne nii fi ñu toll nii mën nañ ne xel yi dal na bu baax ci ni nga xamante ni noonu la ko jërëm jëwriñ yi nosee woon bu ñu nee jëwriñ yi nag liggéey bi buñ ci jiitalee sëriñ Amsatou Mbacke moom sëriñ Chouaïbou bu sëriñ Youssou Diop kenn ku nekk gis taxawaayam ak ndigal li nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Mountakha rotal na ko ci moom mu ànd koog mboolem dongo yi nga xamante ni it ñu ngi fii ci biir Touba ak li génn Touba ba tey mu nekk ci moom it uh, di coordonné liggéey bi ba lépp fi ñu toll nii mën nañ ne mucc nañ ayib fii ñu nekk nag nga xamante ni bu ñu xamee dara ci bis bi yaakaar naa uh, xam-xam bi fii lay ëppee muy ci wàllu penk bi yi nga xamante ni fii la sëriñ bi fas yéenee nekk mu mel ni sëñ Fallou fii ñu taxaw. fi lañ ne fi la Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Chouaïbou bu fas yéene nekk ngeen gis nii mbokk taal bi waajal nañ ko ci wàccaay yëpp nga xamante ni tey jii comme waxtu nawet lañ nekk gis nga nii ñu ko waajalee am tey bu doon taw sax euh, waajal nañ ko noo xamante ni kilifa yi du am benn jafe-jafe ci ñoom donte ndox mi it léeg-léeg mën nay jaar ci suuf yooyu yëpp yaakaar naa waajal nañ ko ci fànn googu ci organisation li jëm tamit ci wàllu communication bi nga xamante ni ñun ponk biñ ci yore nga xamante ni mooy signal bi nga xamante ni moom moo war a jóge fii Euh, képp koo xamante ni yittewoo na ko ñu war ko koo jox côté boobu it féete na boor kon mbokk yi ñoo gisandoo li nga xam ne moom moo di wàccaay wi Euh, ni nga xam ne lañ ko fi amalee euh, juma ji ak li ko wër nga xam ne fépp def nañ ko ay tente ngir waajal mbokki taalibe bu ñu ñëwee mën na dundal li nga xam ne moom moo di bis bi ci njàngum xasida moo xam rajas la durus ba ci njàngum yëkkati noonu lañ ko fas yéene amalee ca Daarul Minan foofee it euh, am na suñu boo xam ne mu ngi fa muy Baye Samba Seck ñu jokkoo ak moom rek mu wax ñu li nga xam ne moom moo am jamono bi ca Daarul Minan ci wàccaayu bisu xasida gi kon Serigne Ma Samba Seck ñu ngi lay nuyu baax la ziar nga indil ñu leeral rek ci li nga xam ne moom moo am jamono bi ca Daarul Minan ci wàccaayu bis bi jërëjëf Serigne Fallou comme ni nga ko waxee ñu ngi fii ci diwaan bu Touba Daarul Minnan fii nag liggéey bi ah, mi ngi avancé bu baax a baax ah, nga xam ne ñooy taxawu liggéey bi ñooy waa Ahlul Minnan ànd ko ak ñi nga xam ne ñooy waa Isbu Tarxiya ah, xam nga liggéey bi mun Mountakha Mbacké xalif général kullu murit daf ci jiitat ki nga xam ne mooy Serigne Amsatou Mbacké Souhaïbou moom it mu ànd ko ak ñi nga xam ne ñooy waa Ahlul Xasida nga xam ne ñooy wa Isbu Tarxiya ñoom it yaatal liggéey bi ba kenn ku ci nekk mën a gis sa bopp ci mbir mi loolee tax fii ci diwaan bu Touba Daarul Minnan waa Ahlul Minnan ñooy taxaw taxawu liggéey bu nu mel fii nag bâche yi nañu lool boo xoolee fii ma taxaw nii am na ci ñaari bâche yu mag lool euh, benn bâche bi ci laa taxaw nii euh, mu nekk bâche boo xam ne ci la ñu préparé ñi nga xam ne ñooy kuréelkat yi waaye nag ci beneen boor bi ci la ñuy ñi nga xam ne ñooy duruskat yi waaye nag li ji bëri na ay bâche lool waaye bâche bu ci nekk nag daal daal dinañu koy def euh, répartition boo xam ne góor ñi danañ mën a toog ne jigéen ñi mën a toog ne loolee bokk ci liggéey bu am solo bi nga xam ne waa ahlul minan ñu ngi koy amal fii ci diwaan bu Touba Daarul Minan ba tey it boo duggee ci biir kër sëriñ bi bâche yi bari nañu fa lool lépp di waaj bés bi waaye nag daal di jëmmal li nga xam ne mooy bés bi kon fii ci diwaan bu Touba mi nan ak lu Minane ñu ngi fiy def liggéey bu am solo lool. waaye nag bépp matériel boo xam ne danañ ko woo ci bés bi ñoom waa Ahlul Minan bàyyi wuñ ko boo xam muy caméra moo xam muy micro ak lu mu mën di doon ànd ko ak équipe technique yu xarañ lool ñoom nag ñooy ñi nga xam ne ñooy taxawu liggéey bi waaye nag fii boo taxawee da ngay xam ne ambiance bi macha allah ndax nit ñi bari nañ fi lool euh, macha allah fii daal da ngay taxaw euh, di dund bés bi euh, di xam ne nit ñi murid yi ñu ngi waaj bés bu baax a baax fi ci diwaan bu Touba Darou Minane kon sëñ Fallou dama lay liggéey bi incha allahu bi am na jotaay yu solo yoo xam ne moom it fas yéene nañu ko fi amal mu nekk jotaay boo xam ne ay euh, boromi xam-xam wala ay bindkat ñoom ñoo ko fas yéene seq ngir bindaat li nga xam ne moom moo di ay xasida nekk euh, ñoo xamante ni ñu ngi leen waajal fii ci résidence Khadim Rasoul mu nekk ñoo xam ne bi ndigal li wàccee rek tàmbali nañ lu nu mel ndax am na xasida yu bëri yoo xam ne jot nañ koo bind lool nag li ñu fas yéene ci bésub xasida bi li tom li ko ci de commencé ci 7h ba 17h ñoom it fas yéene wu ñoo benn yoon dañoo fas di bind ay xasida ci li muy takk loolee ginnaaw bi nag daañu ko jébal ki nga xam ne moom moo di Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir loolee ki nga xam ne moom moo di Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Latif ñëw na visité ko rafetlu ko bu baax a baax a baax xam leen ne lii nekk na loo xamante ni lu am la ci yoon wi waaye day gën a toppaat njeexantal euh, ki nga xam ne moo di Cheikhul Khadim. te kuréel gii koy sàmm nag te di ay ndaw te da ko jaarale fii ko mag ñi doon jaarale buñ fa duggee dañ leen a gërëm lool sant leen suñu sedd ci ñoom ndax ñu xam ne lii itam mooy li neex Serigne Touba. sëriñ Mountakha lii rek la bëggoon bay woote bis bi ak di soññi ci yu mel nii ndax jeexit yi xam ne sëriñ Touba ko fi andi woon mosu fee am te mu war di dund war di yàkkale ko saa ne feeg ñu di ko sàmm dañuy gëm ne ndonnu teef la mi ngi dox te feeg ndonnu teef laa ngi dox dañuy xam ne mbirum sëriñ bi lépp day gën di jëm kanam nag naam xam nañ ni mbirum sëñ bi mënta dellu gannaaw day jëm kanam saa su nekk waaye lii day dal xel gis ni li koy jëmale kanam ñi ngi ci day dal xelum ñi ko waroon a sàmm wala ñi ko yéene wala ñi ko bëgg te buñ ko gisee seen xel day dal man de sama xol daje sedd seriñ euh, Youssou Diop mi nga xam ne mooy responsable euh, moral bu daara Hizbut Tarqiyyah ci wàccaayu bésub xasida bi mi ngi leeral euh, moom it ginnaaw bu mu nemmee ko jotaay bi nga xam ne fa la ñu amalee mbindum xasida gi ne jël nañ mboole matuwaay yi ngir bés bi mën a yemb lépp loo xamante ni laaj na rek laaj na ko muy bésu xasida bi def nañ ko ci ngir bés bi mën a yemb ñu amalee ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir santaane waaye it rafetluwaat bu baax a baax ni xam ne noonu la ñu amalee mbind mi fii ci résidence Khadim Rasoul ginnaaw bu mu ko nemmeekoo ñu ànd teewlu kàddu yi Serigne Youssou Diop bi nga xam ne mooy responsable moral bu daara Hizbut Tarqiyyah dama gën a yëgaat rek ne Serigne bi moom li mu am suñ borom moom rek la ko defal euh, moom moom léppam xar baax la léppam kéemaan la ndax euh, moom sëñ Tuubaa moo daan def xëy bind lu kaamilu alxuraan ci benn bis moom sëñ Tuubaa moo ko mënoon euh, moo daan wax ne dañ ma bindal téeméeri kaamil ñu bind ko téeméeri kaamil tey ji nag nuuru daare ni euh, di téere boo xamante ne su sëriñ bi daan wax bu ne sama téere bi rek dañu xam ne moom lay laaj euh, tey jii bu ñu amee ay ndaw yoo xamante ne seen dañoo dañoo ci yoon wi euh, doon ay ay ñoo xamante ne it dañoo nàmp yoon wi waaye gëm ko dund ko dund googu ñu ko dund jublu sëriñ bi ba tey jii ñu tànn ci ñoom ab lim boo xamante ne bisu xasida bi ñoom dañuy bind rek Euh, bu ñu mënee bind li mu téeméeri nuuru daane ñu ànd ak yeneen xasida yu bari yu ñu bind yoo xam ne lépp mbindum loxo la mën ko jébbalaale sëriñ bi euh, loolu du wane dara lu wane na rek sëriñ bi la suñu borom nangul waaw ñu ngi ñu ngi sant nag réglage si moom lépp aw na yoon te dara waralu ko lu dul ak nos ndax bi ñu yàlla suñ borom boole ak sëñ Hamsatu Mbakke euh, moom njabootam gépp ak nun dañoo doon lenn waaye yamu ci mbooleem ñi nga xam ne ay kuréel lañu ne ci dëkk bi ne ci mbooloo yoo xamante ne ñii ci sécurité la ñuy liggéey ñii ñoo yor lu mel ni jumaa ji waa mu xadamatul xidma ñii seen liggéey dafa jëmaat ci yeneen fànn ñii yor ay wàññ ñii yor leneen ñëpp a mel nii benn bopp lañu te li gën a yéeme mooy barrière bu doxoon ci diggante taalibe ak moroom Cheikh mun Mountakha dindi na ko kenn ku ci ne boo gisee sa moroom yaa ngi koy naw yaa ngi koy bëgg yaa ngi koy xemmem yaa ngi bëgg mel ni moom sax te loolu dara waralu ko lu dul ndimbalal yàlla moo ñëw. kon mbokk yi li mooy li nga xam ne moom lañ leen uh, indiloon ci wàccaayu bésub xasida bi rek fas yéene ko ànd ak mbokki taalibe yi ci retransmission en direct bi ak lépp loo xam ne ay reportage la ay temps fort incha allah fii ci Touba Mbacké ak lépp loo xam ne rek dana fi bàyyeekoo ngir dundal ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaanee rek ñu santaan mbokki taalibe yi bu baax a baax ñu sàmmanteeg ndigal li takk maski ak lépp loo xam ne rek euh, loolu la sëriñ bi santaane rek ñu defee ko noonu te xam ne loolee moom mooy tax ñu mën cee jariñu dig leen daje incha ci yeneeni reportage fii ci Touba Mbacké wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. law tawajjahtu xariban waxdi bayna dawi taxaalufin wa jahdi kitaabati kabatatil kataa'ib wa dahdahat man laa yuraa bi taa'ib فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا دري هدم وكل من مال لغيري انصدم أكرمني الرحمن والرحيم وانقاد لي بلا انتهى ترحيم laa rayba fi kawni makaatibi ladaa rabbi junuudan minhu safat xaladaa ilal kitaabi wal hadiisi sarafaa